wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi si seen site internet bi di 24actu comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk ci naafilay weeru koor bi tey nag ñu dikkal leen ci guddi ku fukkeel gi ak ñaar fukki rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon qul huwallahu ahad te juróom benn yoon ñu baamtuwaat ko fukki rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon qul huwallahu ahad yoon ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci lañuy ñuy jàpp koor gi di 5 heures maanaam juróomi waxtu ci fajar bu ñaar fukki simili bu dee waxtu dog yi di 19 heures 25 maanaam juróom-ñaari waxtu si ngoon bu ñaar fukki simili ak juróom ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah wa rahmatullahi taala wa barakatuhu riwal wa sahlan